jëf ya saar ñaar fukk noonu pool xool jàkk géew ba ne leen bokk yi ci xel mu dal la doxale ci kanam yàlla ba ci bésu tey bi ci kaw loolu saraxalekat bu mag ba di ku ñuy wax ananiyaas sant ña taxaw ca wetam ñu fel gémmiñam pool ne ko yàlla dina la dóor yow mi naafeq bay saamandaay miir buy jooy bu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 su fekkente ne raba ko wax mbaa malaaka noonu xulo ba daldi gën a tàng ba kilifa ga ragal ne nit ñi dinañu daggaate pool kon mu sant xarekat ya ñu wàcc nangu pool ci ñoom yóbbu ko ca taataaja ca guddi ga nag borom bi taxaw ci wetu pool ne ko takkal sa fit ni nga ma seede ci yerusalem noonu nga may seede ca rom